<laughs> man sama papa la sama yaay mooy jullit mhm. sama yaay nag vraiment ci famille mbàkke mbàkke yu baax si la bokk sama maam Alaaji moo Gueye bokkoon na ci jawriñu sëñ mm. Fallou yi de son vivant mhm. bon c'est pourquoi quand même euh, waruma wax loolu samay nopp mhm. le mariage n'était pas très bien accepté dans la famille parce que temps boobu à l'époque se marier avec un chrétien c'était pas évident bon donc loolu yëpp. Euh, ay jaar yàlla defar daal ay mhm. jaar jaar. Mhm. mais Sénégal loolu def fi bari. Mhm. Ah, man euh, suñu kër euh, ñaari catholique fa am Émile moo fay catholique ak Antoine mais ñi ci des ñëpp ay jullit lañ. donc loolu bari na ci réew mi. le dialogue islamo-chrétien ñun ah suñu kër moom suñu kër loolu am na fa mhm. te vraiment amul benn problème bu ñu am on s'entend très bien ñun ñëpp dañuy dégganu te loolu du foofu rek boo xoolee famille yëpp mhm. ah ñii catholique lañ ñii sëriñ lañ mhm. mais loolu Sénégal loolu moo Sénégal yàlla mu daf ñu ko may rek yàlla daf ñu ko may dialogue bi c'est tellement sincère